Sénégal moo bëri comédien wallaay Achim am ngeen am ngeen <laughs> dama fa gisoon ay kilifa yoo xam ne jamonoy Adji Sarr dañoo defoon aji Sarr mu nekk seen héroïne maanaam moom rek lañ doon topp ñu koy statut naan de suy Adji Sarr di ko défendre partout jamono yi doxa doxa doxa doxa dox ba Adji Sarr fen loo leen aji <laughs> da daw da génn réew mi de aji comme moo porté woon plainte kay jor mu doon daw bu dee ci dëgg la nekk waaw benn benn eh, kii wa ngi noonu bu ngi leen juumloo may mu leen Ndour fay encore ñu waat opportuniste di ko di ko politique daal wuy waa yi la may mun a dóor fay nee naa ngeen yor pouvoir ba pouvoir bu jeex mun leen a génne benn patriote bu nekk kii impliqué na ci <laughs> agression may mun a dóor fay te wallaay asib doon nañ ko stock ñuy jël seen couverture livre def ko ñuy def ko ay ay cadre def ko ci photo cadre euh, gone gi may mun fay def seen bureau lu ne lu ne gis naa ko ci dossier boobu ñetti fan yii nag Ameth Ndoye lañu jël <laughs> ay gis naa ci gone gars yi leeral TV la xam ñoom moom Ahmed Ndoye moom héros ci ñoom moom ñu ngi koy wax ak le célèbre journaliste nag Ahmed Ndoye du journaliste animateur la <laughs> waaw beneen douche yi génn de gone yi ñu ngi koy saaga rek eh, suñu Modou Boussa Dieng Modou Boussa Dieng gone yaa ngi koy wax lu ne du ngeen ko génn kii lu ngeen defak ak moom moom da ngeen koy statut di ko profil ak yooyu wala. <laughs> Sénégal Eh, eh, eh, waaw man réer rek yàlla na yàlla gindi mhm. yàlla na yàlla gindi yéen ñi nekk ci loolu génn leen ci li ngeen ne da ñëw ñu liggéey ah bàyyi leen seen caaxaan yi ay <laughs> Modou Boussa Dieng dégg naa ko mu naan mu naan mooy mooy mooy fay booy influenceur pour ñu dal ci kaw. yow Ousmane Sonko ba jamono ba muy am jot. tëdd l'hôpital nga luñ ko du télé la fay ngeen football film dem ba mi responsabilité réunion de gauche à droite di deux heures de temps par jour deux heures lay nelaw par jour nga bëgg yow di la déglu yow ne serait que sept secondes ci temps ko secondes mayuñu ko mu jël ko ci temps ne da lay déglu yow. ay Asi moo bëri ñu xarabu rek.